man ahabbahu wa ta'ahahu fillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki teeluba yi soppe yi seen deelu asan xiiwal ci sëriñ Tuuba radiyallahu anhu di sëriñ Daaru Asan ak sun way jur yi dox su ndigg ak moom yépp sëriñ bi kon mu ngi leen di sant di leen gërëm ci pësteef bi ngeen làmboo ànd ak yéene ju rafet ak jëf ju sell yoo xam ne suñ boroom rekk a tax ba tax mboole seen ngeen àndandoo ñëw toog tey jii ci kanamam góor ak jigéen maa nga ndaw bàyyi ko ci gox yu teqali ko te soree ni ko sëriñ mën njaay xasan lime léegi yaakaar naa rek tuddul njare lu gare ak waa saam sekk gee ñooñu laa déggul mu tudd leen ci lim bi waaye kon ñu xam ne njareel njareel lu gare ñoom itam teew nañu ak seenum liggéey saam sekk yit teew nañu ak seenum liggéey waaw Touba Belgueye su ko defee kon sëriñ bi ak njare gëmbul kon mboole seen rek ñiñ tudd xam na ni faaw rek ñu am luñ fàtte am it ñu accès gul ndax woote ci benn bis ñëpp ñëwandoo day xaw a jafe xam nañ ni am nañu accès gul te danañ agsi nim daa amee at mu jot mooy xëy na ñu mel ni njare gëmbul googu ñu wax waaye xam nañ ni cubbeen dëru bay waaye xam nañ ni ñoom ñëpp insha allah fu fi njabootu sëñ dëru asan ne ak soppeeb sëñ Daaru Asan rek xam nañ ni dina agsi kon ñoom ñëpp boole waale sëriñ bi bàyyi na leen xel ci ñaan yi ak cant yi ak ngërëm yi kon sëriñ bi ni nga amuk cant bu baax a baax ci siyaare bii nga xam ni ay ata ngi ñu baaxoo di ko ko siyaare ngir jëmmi sëñ Daaru Asan jëm fi tooge ak jëmmi way jur yi nga xam ni ñoo fi wuutu woon sëñ Darou Assane ginnaawam ak jëmmi mag yi nga xam ne ñoo ko fi wuutoon yàlla na yàlla gën leen a yëkkatil ay daraja ñoom ñépp ba suñ boroom dogal cër bi agsi ci moom mu nekk ci suñ kanam ñu topp ci ginnaawam ah sëriñ bi mi ngi sant bu baax a baax li nga xam ni biñ fi jógee daaw ba léegi fii ci réew mi ak bitim réew yépp mbooloo yi ñu ngi tase di waxtaan di dajale seeni wërsëg di natt ngir buñ agsee ci bis bii rekk ñu mën koo def ñu gën a rafet nan ko naa defe te mel na ni sun boroom fekk na ni ci loolu daana rafet moos waaye xam nañ ni ren jii gën naa rafet bu baax a baax kon nag yàlla na sax sëriñ bi mi nga ñaan mu sax di gën a rafet ilaa yawmil qiyaamati ba ca sët yaak sëtaat ya ba ca ña koy mujje buufta bi won sëriñ bi mu ngi leen di xamal ni dinu xamal ni nii rekk la ndax lii nuy def di liggéey dafa deme ci yoonu taalibe ni julli deme ci lislaam xam ngeen ni julli ci lislaam munu cee ñàkk saa bu nit ki tuddee baate seede yi ni ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wana ni moom kat jóge na ci kéefër ak topp seytaane dugg ci lislaam ak topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa lislaam atteb sariatu daf koy daa di sant bu julli jotee mu julli ngir dëggal loolu mu wax bu waxtu wa jotee nag ñu ni ko jullil mu gàntal bu boobaa duñ ko nangul baate seede yooyu loolu ci la saree atu di sukkandiko sax ba mën naa dem ba kooku ñu rey ko te fekk yoon a ko rey kenn du ca am benn bàkkaar kon julli nag noonu mu demee ci lislaam nga xam ni kon munta ñàkk bu dee woora mën nañoo wax ni nit ki mën naa judd ba faatu du woor benn bis te dara du ko ca war ndax sart ya nga xam ni mooy tase ngir woor war ko tasewul ci moom nit ki mën naa juddu di nit jullit la ba faatu du mos a génne asaka benn yoon benn dërëm wala fifteen te dara du ko ca fekk ndax sart yi taxaa génne asaka tasewul ci moom nit ki mën naa juddu di jullit ba faatu demul màkka te lenn du ko ca waar ndax sart yi nga xam ne moo watar ci moom ngir mu dem màkka tasewul ci moom yett yooyu ñooy ponk lislaam ak julli mi ak baati seede yi ma wax nga xam ni moom mooy wane ni dugg nga ci lislaam waaye julli mi rekk nag moo ci am daraja bii nga xam ni li feeg nut kaa ngi ànd akom xelam di man dara dañ koy sant mu julli moo xam nag day tëdd di ko def moo xam day xapp-xappal ay xefam te mu ca julli moo xam sax da koy xalaat dong cim xelam te fekk dara mun te yëngu ci moom waaye li feeg mi ngi ànd akom xelam nga xam ni bu xalaatee sax xalaat ni kat yéene na maa julli mën a yéene dong sant nañ ko mu yéene donte sax ab loxo du jóg xef sax du yëkkatiku loolu rek julli moo ci toll noonu ci lislaam kon loolu dañuy yëg ni julli lu mënta ñàkk la lool yi lépp nag li tax ma di ko wax liggéey bii nu tasa ci kanam sëñ kanam sëñ bi doon ko liggéey ba jébbal ko ko wan leen darajay liggéey nu mu toll moo tax may wax lii waaye loolu taxumaa jóg kon xam nañ ni julli toll ci sariatu noonu ma ko waxee kon nañ dikk ci liggéey nu mu toll ci yoonu murid ci ku jaayante nib taalibe la kon ñu xam ni bu nit ki jaayante fekk sayxul mu rabbi mu ni ko jébbal naa la sama jëmm ak sama lépp lu ci adu adduna ak àllaaxira loo ma diggalati dinaa ko def loo ma traité dinaa ko ba moom itam noonu julli taxawe woon ci lislaam bi nit ki tuddee baati seede ni la liggéey di taxawe ci wetam ngir dëggal lii mu wax ak weddi ko fi wuute bi nag fi wuute bi ne nag sariatu moom dafa yor jaaseem am sañ-sañu képp koo xam ne li nga wax defoo ko mu dal ci sa kaw dagg sa baax xaqiiqatu nag suñ borom ni bàyyi leen koo man maa koy lijjanti kon mooy tax bu nit ki ne jébbu leen ci liggéeyu nit ñu bàyyi ko fekk déedéet bàyyi wut dañ koo bàyyi ak yàlla te bàyyi ak yàlla moo gën a doy waar bu doon fa atteb sariya ne nag bu jullit bu julliwul dañuy daan dagg bopp bi loolu suñ boroom a ko atte may ko sariatu moom muy fajal boppam fii ci àdduna du nekk ëllëg xaqiqatu nag suñ boroom ni bàyyi leen ba jaam yi del si ci man loolu maa koy atte ndax mbirum xol la te xol suñ boroom lijjanti loolu ko kenn mbirum sariatu nag mbirum ay cër la cër yi la suñ boroom lijjanti lu kon loolu rek mooy tax ab taalibe man nit taalibe la ba noppi du liggéey ñu bàyyi ko ca waaye su ko defee kon liggéey noonu julli tollu ci atu ni la toll ci taalibe kon taalibe bi saa bu jaayantee moom itam sayxul murabbi bi daf koy daal di digal ca saa ba ko soobee saa bu ko digalee nag loolee mu ko digal mu di diital wala mu gàntal kon lam waxoon firiku na su ko defee la waxoon sax na li feeg ma ngay def loola pas-pas ba sax na saa bu ko bàyyee rek firiku na kon liggéey noonu la toll su ko defee sëriñ bi dina xamal ne liggéey ba mu tolloo noonu te loolu la koy firndeel mooy waxi sëriñ bi sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu loolu mu wax ni ñi wax ne dañoo aju ci man ñeenti nit la ñeenti xaaj lañu ke ani da ke ni daa aju ci man te du jaamu yàlla du ma liggéeyal mu ni kooku ci fen wu leer la ne ki ni daa aju ci moom di jaamu yàlla te du ko liggéeyal kooku ci fen wu nëbbu la ne ki aju ci moom moom itam du jaamu yàlla du ko liggéey kooku moom moo gën a fés aw fen kooku moom kenn ku ne xam na lim nekk ni du dëgg mu wax waaw daa wax ni ki koy liggéeyal ki ni daa aju ci moom di ko liggéeyal te nanguutu jaamu yàlla mu ne dana dem àjjana waaye faw dees na ko isab dana am ay coono ki ni daa aju ci moom loolu yi nag fu ma koy waxee damay fedd li ni dégg naa ko ci kàddug sëñ Abdul Ahad ibnu Cheikh Xadim radiallahu anhu dégg naa ko ci kàddug sëñ Abdul Xuduus ibnu maam Ceerno ya radiallahu anhu yaakaar naa ñaar ñooñu doy nañ luñ war a mën a tegtaloo ci yoonu murid donte nag déggee soo ko ci bari waaye man ci sama nopp dégg naa ko ci làmmiñu ñaar ñooñi bindkat yi bind waxi sëñ bi bind nañ ko kon sëriñ bi ni képp koo xam ne danga nga ne ci moom nga aju yam ci liggéeyal ko dong te bàyyi jaamu yàlla mu ni dana texe waaye nag faawu dees na am fees ko jaarale balay dem àjjana mu ni ki aju ci moom boole di ko liggéeyal ak jaamu yàlla maa ngi jégglu foofu laa juume woon boole jaamu yàlla ak di ko liggéeyal kooku day dem àjjana te kenn du seet lennam yal na nu yàlla boole ci ñooñ yi foofu it xam nañ ni suñ jëwriñ jii di sëñ Daaru Asan foofu la taxawal kon yal na nu yàlla boole ci ñooñ yi loolu it ba léegi mu ngi fi mu des ñaar ñi ki ko ki ni ci moom la aju di jaamu yàlla dong te du ko liggéeyal dara kooku moo nekk ci fan wu nëbbu ndax mënoon na ni rek ab jullit laa waaye lim won ni ci sëñ bi la aju moom ajuwul ci moom kon foofu la ñuy xame ni foofii la ñuy tegtaloo ni liggéey mënta ñàkk donte ki aju ci sëñ bi di jaamu yàlla te liggéeyalu ko sëñ bi nanguwul ak ajoom kooku kon moom ci la ñuy xame ni képp koo xam ne dangaa jaayante ci yoonu murit ak koo ci mën a jaayanteel faw nga liggéeyal sëriñ bi jaarale ko ca kookee nga jaayanteeg moom mu des nag ka leen ñeenteel ki ni ci sëñ bi la aju jaamuwul yàlla liggéeyalul sëñ bi kooku la sëñ bi ni ci fan wu weex tàll la ne ne moom dara nëbbu ca kon liggéey bi nga xamee ni noonu la toll ci yoon wi nga xam ni kon munta ñàkk kon mooy tomb bi jiitu joxe hadiya mi ngi fi waaye liggéey ñàkk te joxe addi it boo ko fasee muy liggéey ndax addi yi da ngay joxe gannaaw dañ koy liggéeyee day dellu si ci liggéey rek waaye ma kon sëriñ bi dina xamal ni am na ñeenti tool yu ñuy liggéeyale sëriñ bi dees na liggéeyal sëriñ bi ci barab bi sëriñ bi buñ nee barab bi sëriñ bi yi sëriñ baa ngi ci jàkkay sëriñ baa ngi ci daaray sëriñ baa ngi ci yu jàng alxuraan yi daaray kaamil yi jàng alxuraan yaa ngi ci ci ku ca am ndigal yi tërbiye yaa ngi ci ci ku ci am ndigal ak lépp loo xam ne rek dees na ko liggéeyal ci kaw suuf muy tudd barab kon dees na ci liggéeyal sëñ bi ci barab yi sëriñ bi moo xam tool yi lu mel ni xel comme daa jin dem ak yeneen ak yeneen lu mu ca man di doon te mu nekk lu ñuy def fi barab te fas ca sëriñ ba loolu tool la bu ñuy liggéeyal sëñ bi kon barab yi sëriñ bi barab yi sëñ bi yooyu ma lim yépp mi ngi ci biir waaw faaw nag kii liggéeyal sëriñ bi fas ci sëriñ bi inamal amalu bi niyaati kenn ku ne buy jëf lam fas ci jëf ja moom la suñ borom di jàppee jëf ja julli moom mu ñuy wax sax li muy màgg-màgg ku doon julli tey njistal wala bëgg a nax julli di tax nga ne naa julli bañ wóolu ma dugal ma ci seen biir ma def fi gaaf bu boobaa bàkkaar nga cay jële kon inamal amalu bi niyaati pas-pas yi la suñ borom di seet kon faaw kiy liggéeyal sëriñ bi li muy def mu fas ci liggéeyal sëñ bi mu doon mu soog a doon liggéeyal sëñ bi kon tudd naa benn tool bi muy barab yi ñaareelu tool bi mooy xasiida yi xasiida yi sëriñ bi dees na ci liggéeyal sëñ bi ci di ko jàng di ko jàngale di ko bind ak di ci yeete ak di ci xamle ak di ci waare di ci gindi nit ñi jëme ci sëñ bi lépp ci liggéeyal sëñ bi la bokk xasiida yi beneen tool a ngoog di ñaareelu tool yuñ mën a liggéeyal sëriñ bi ñetteelu tool bi mooy mbindeef yi mbindeef yi ñoom itam sëriñ bi xett li mbindeef yi rekk ko fi indi woon moo fi donn yonent bi sallallahu alayhi wa te yonent bi suñ boroom moo ko ni woon yónniwuma lu dul yërmande yi mbindeef yi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónni wuñ la lu dul rek yërmande yi yi nga mën leen a xettali génne leen ci loxoy saytaane dugal leen ci sama loxo man tabaraka wa taala mi yor lépp tey ëllëg ma xettali leen jéggal leen seeni bàkkaar dugal leen àjjana di leen teral ilaa abadil abad lu amul yemukaay loolu moo indi woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ bii ko wuutu di sayxul xadim radiyallahu anhu bi mu dikkee moom itam foofu yonent bi sallallahu alayhi wàcce woon rek fa la sofe jëm ca kaw moom itam xeeti li bindeef yi rek a ko tax a jóg ngir génne leen ci lëndëmu kéefër ak biddaa dugal leen ci leerug lislaam ak topp sunna si Yonent bi sallallaahu alayhi wa ko waxee ci xasiidaam yi mu baree bari ba kenn mënu koo lim ba loolu di sababus mu sañcoon dëkk bii kon mbindeef yooyu taalibe bu ne war na cee jéem a liggéeyal sëñ bi may wax ni liggéey bi ci ëpp solo nag mooy fexalee ba di leen teg ci yoonu taalibe wu leen di xettali di leen musal ci mbugalu suñu borom ëllëg di tax ñu tàbbi ci yërmande suñu borom tabaraka wa taala ëllëg loolu mooy liggéey bi jiitu mooy bi fi sëñ bii nekkee nu topp ci moom mu di nu digal li nuy jariñ te nag ëllëg di nu tere li nuy lor te nag ëllëg kon liggéey ci mbindeef yi di leen delloosi di leen teg ci yoon wi di dox seen digg ak saytaane ak yàq ak biddaa ak mbiri àdduna ak poog caaxaan loolu mooy liggéey bi ci jiitu bu loolu jàllee nag ka nga tànnee ci sa wërsëg dimbale ko fas ci liggéeyal sëñ bi liggéeyal sëñ bi la ki nga xam ne daa am yitte joo xam ne lott na ci mënu koo dox nga lottal ko ko nga doxal ko ko liggéeyal sëñ bi la ko amuk jaaxle ci lëndëm lëndëmu xelam ak xolam mu dikk nga teqantal ko ba tàggale kook lëndëm lëndëm ba ba mën a jàll ak leneen ak leneen luy jariñ mbindeef rek loolu ci liggéeyal sëriñ bi la kon ñetteelu tool bi mu ngoog mooy mbindeef yi tooli sëriñ bi lañ ku ci liggéeyal sëriñ bi sellal liggéey ba sëriñ bi fay la barab bi sëriñ bi ni ma ko waxee léegi ku ci liggéeyal sëriñ bi fos ci sëriñ bi sellal sëriñ bi fay la xasiida yi sëriñ bi ku ci liggéeyal sëriñ bi fas ci sëriñ bi sellal sëriñ bi fay la tool bi ko ñeenteel mooy alquranul karim alquran suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne moom la joxoon yonent mu di ci sukkandiku ci wommat bindeef yi teg leen ci siraatal mustaqim jëme leen ci suñu borom te gannaawam mbir mi demoon ba alxuraan ñu teg ko fële doonte sax dañ koy tuddoo di ko jàng waaye lépp ñu jëmale ko ci rëbb adduna ak caaxaan ak po bi sëriñ bi ñëwee jëlaat alxuraan tegaat ko fa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon dundalaat ko xalaat yoon wi setal ko di di dégg yeeg taxas yeeg ñuq-ñuq yi ba yoon wi leer naññ kenn ku ne mën cee dox te dégg du la jam doo fakkastalu doo gëlëm doo réer doo jàdd ci sël yi loolu sëriñ bi bi mu dikkee moom la def ba def ci alxuraan lu ci kenn deful nangu ci lu ci kenn nanguwul te mooy li waral tukkeem bii man ci lu ci kenn mënul sun borom donnale ko alxuraan ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa alxuraan moomu kon moom itam képp koo xam ni yaa ngi teral alxuraan di ko jàngale di ci yeete di ko bind ak lépp luy liggéey ci alxuraan te fas ci liggéeyal sëriñ bi moom itam ab tool la ci tool yi ñuy liggéeyal sëriñ bi kon ñeenti tool yooyu mu ngoog sëriñ bi nee na mi ngi soññe liggéey gannaaw biñ jaayanteeg moom te liggéey toll noonu ci yoon wi kon moom itam mi ngi daa di fàttali daana ko soññe waaye mi ngi koy gën a li liggéey boobu nga xam ni mooy tax sunu jaayante dëggu sëriñ bi nangu ko nu am liñ bëgg tey ak ëllëg kon sëriñ bi mi ngi fàttali liggéey boobu suñu ko fàttalee ba noppi it mi ngi nuy sant nu sax ci te bañ buñ xëyee tey bu ëllëgee ñu bañ a gont wala boo gontee tey bu ëllëgee nga bañ a xëy kon sëñ bi mi ngi koy soññe bu baax a baax ndax nag mu ni borom tool bi te mooy Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ñi fi jaar ñëpp di suñuy kilifa ay jëwriñ lañ woon ci tool bi ba mu wuute leen fi mu ni daa wax ni waq di hawa ijal lasiina daamu fi xidmati wa hëbb lahum maaraamu yow suñ borom tabaaraka wa taala maa ngi lay ñaan na nga faj aajoy mboolem ñi sax di ma liggéeyal sëñ bi ay waxam lu mat di seetlu la du bàyyi dara ñi sax kon moo wa mooy wane ni sax gi mun te ñàkk daa mu sax ñi nga xam ne dañoo sax fii xidmat yi na nga faj seen aajo te lépp luñ sàkkooti it na leen ko defal kon mboolem li ngeen doon wax di ko sàkku ci sëñ bi moom sëñ bi yéwénal na ko ba noppi noo ci des des gi nag mooy lii sëñ bi wax muy nu sax ci liggéeyal sëñ bi rek ni ko sëñ bi wax suñ ko ba su defee sëriñ bi noppi na sëriñ bi nee la ca dolli ko ci lu nu mata nu war lu nu taxa dalal suñ xel te sëñ bi féete nu ci te muy lu am solo mooy mu ni bi sëriñ bi moom bi mu dikkee ñu seet ni liggéey moom itam la tànn bi mu dikkee fekk yonent bi di jëwriñam sallallahu alayhi wa sallam tànnut lenn ci yonent bi lu dul doon jëwriñam ci tool kon loolu it dana wane martaba liggéey ni mu toll ci yoon bi seexul xadim bi mu dikkee di abdullahi di jaamub yàlla boo xam ne daa nangu ni yàllaa ko bind wéetal sunu borom tabaaraka wa taala dayob wéetal ci wàll gune ba mu ca jógee lam ca teg mooy ne dann yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek fas yéenee doon jëwriñam ku ko jiitu woon rek mu taxaw ci sa kanam nekk ca loola ba am loolee te loola moo yoonu géej gi ndax leneen lu mu mën nañ ñu ñu baree bari jaar nañ fi ba am ko ba làq ko waaye nag ba mu demee ba ca njobbaxtan la fa gaayoo doon dëppe fa gaaña doon dem ba dootu ñu mën a sequb jéego mu soog a laxasaay jóg looloo yoonu géej gi waaye boobu na lu ñuy def ci lislaam def na ko ba war a doon yelloo doon xutbu samaan ni ñépp mu ne xeeb na loolu li mu bëgg mooy sës rëkk rëkk rëkk ci yonte bi sallallahu alayhi te mooy bi ko yonent bi sallallahu alayhi fekkee fii ci doon Xudoos ànd ak lenn ca saxaaba ya wala ahlu badrin mu gis cër ya xemmem ko te gis na leen waaye am na lu mel ne weer luñ doxal seen digg ak moom ba mënu leen a laal mu xam ne kon des na bu desul woon day mën a jaxasoo ñoom riisoom ñoom mu sàkku ci yonent bi sallallahu alayhi bokk ci gaay yi nga xam ne dañuy jonjoog moom mu ni ko loolu cër bu diis la dara nañu ko sàkku te bañ demee ba ca biir waxuma la di ko jot waaye dañoo far doxe fa yàqule mu jaayante lam jaayante yàgg nañ koo dégg ba roogu liggéey bi mooy liggéey bii ñu doon sant barki démb kon kenn ku ne xam na ni yoonu géej gi ba ca gànnaar ak ca yéen lépp ab liggéey la kon loolu lépp moo nuy won ni liggéey toll ci yoon ba yeyoo tudd xaadimu rasul di jëw nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tool bii ko son borom dénkoon waaye sëriñ bi mu ne nun lii suñ dimbal sëriñ bi bi mu defee loolu ba yeyoo loolu suñ borom xam ni kii kat yelloo na lii mu doon laaj ñu teg ko ci loxoom daa wëlbati ko fa saasa tàllal ay loxoom suñ borom tabaraka wa taala ni ko yow suñ borom tabaraka wa maa ngi lay ñaan liggéey bii ma doon liggéeyal sa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga nangul ma liggéey bi tey jox ma yoolub ku liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg dëgg dëgg dëgg liggéey mbooleem ñuy topp ci man te am pasteefu di ma liggéeyal ci tool bii ma jiite maa ngi lay ñaan nii nga ma nangule faye ma ni na nga leen nangule ni faye leen noora kon ñaan googu sëñ bi fàggul na ne ko tiddiku na kon li ci des mooy nu liggéey waaye ku liggéey añ loolu moom amul sikki sàkk loolu sëñ bee ko wax allahumma yaa man laa taaxusuhu sinatun wala nawmun fa kama qabilta minni xidmata rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam walam taxrimni ajraha fa taqabbal xidama xuddaami wala taxramhum ujurahum yaa qaribu yaa mujibu yaa rabbal alamin waxi sëñ Tuubaa radiyallahu anhu kon sëriñ bi moom ku ko liggéeyal añ bari aana nag leneen loo xam ni lañ ca aj ci ay sart matal ko jafe na ba tax na ku ca duggit mënees na caa def sax nag sa kem kattan rek ngir jëfe ndigal waaye sart ya diis na diis ko ah ña ko mën a matal bariwul gannaaw sëriñ bi nag moom féete nañu ci nangu te nangu di lu jafe ndax sart yiñ ci aj ngir suñu borom nangul na sa sa jëf daa jafe ci jaam ñi ku ko mën a matale sëriñ bi kon daa mel ni loolu la xam boo tax mu ñaanal lu ñaan gi ku ko liggéeyal rek suñu borom nangul la añal la kon li ñuy ñaan mooy nun sax ci liggéeyal sëriñ bi waaye kon sëriñ bii nee na mboolem loolu ngeen deen sax di ak njëggal wërsëg yi ak man ngeeg gudd fan ak wér lépp dogu na ci barkam ñun fi toogal di way jur yeeg sëñ deeru asan ñu liggéeyal sëñ Tuubaa ba mu gërëm ko loolu képp ku fi jóge yóbbaalee na ko bëggee nu kawe sa njort su ko defee sëriñ bi ni bi mu leen xamalee liggéey ni mu toll ci yoon bi xamal leen ñeenti tool yooyu mu leen wax ni ñoo yooy ñooy ñi gën a fees ci liggéeyal sëriñ bi wala sax ñooy tool yi ñuy liggéeyal sëriñ bi mu des jumtukaay yi kenn ku ne xam na ni ku nar a liggéey ci tool da ngay ami jumtukaay doo liggéeyee loxoy kese du liggéey jumtukaay yi kattan nug yaram bokk na ca kon ki am kattan te nanguwuta def kàttanam googu ci liggéeyal sëriñ bi mi ngi nax boppam ndax kàttan gi moom faaw day dem ba ñàkk ko sëriñ baa ngi di mag la mënoon mënatu ko te xamoon nan ko ak njàmbaaram ak postéefam ak fitam xamoon nan ko te mënatu ko te waaye nag alhamdulilah lan ko xamee woon lépp ci sëñ bi la bu ko ci deful woon tey lu mu yéene yéene mënu caa dellu kon ndaw ñi toll ci kàttan dañ xam ni sëñ bii gënuñu ko woon a sawar ëpp ñu ko woon kàttan te tey kàttan googee amatu ko bu ko ca defuloon it loola neen lay doon kon ndaw lu toll ci liggéey rikk bul nax sa bopp bul dem bul bay rëccu fu ñu woote liggéeyu sëñ bi def ca la nga man ak la nga mënul te xam ne màggata ngi ñëw te léegi ngi ñëw te jaam bi faaw ëllëg dees na ko laaj kàttanam gii bu wuy jee suñ borom suñ borom dana ko laaj kàttan gi mu ko joxoon ak taar ba ak cawarte ga fu mu ko def sa yaram wii noo ko rappale yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax suñu borom dina ko laaj kon ndaw yi toll ci kattan toll ci man toll ci cawarte toll ci wér bu leen defe ne mag ñi dañoo yaafus déedéet ak maga leen jàpp ñoo leen gënoon a sawar fuuf ëpp leen kattan gën leen a sawar gën leen a wér kon futtiku leen te xam ni yéen a ci toll te xam ne loolu rekk mooy seen njëriñ jumtukaay rekk la boo xam ni ku ci liggéey ëllëg mu añal la ku ci liggéeyul ëllëg mu toroxal la ndax yaar yooyu rekk dalay añal rek wala mu toroxal la ci misaal ni ko jàngalee jëf ju baax ji nga jëf bu ëllëgee nit ñi dekki benn mu doon war waay taxaw ni la yéegal ma yóbbu la ca barab ba fa ñuy tase te foofa sori lool te naqaree dem bu fekkee lu baax nga ci doon def wala nga doon ci defab safaan mu dikk ne la sëggal ma war la nu dem te diis gann kon kàttan gi moom du neen dalay jariñ wala mu alag la rek kon nag nan ko jariñoo waay yéen ndaw yi góorgóorlu leen te laxasaay waat fu ngeen dégg liggéeyu sëñ bi jiitu leen ca bu leen soxlaa lekk bu leen soxlaa naan waaw yéen am leen la sëñ Mbay Falloo jàngale woon rek radiyallahu anhu ab taalibe day yor jikko yi baara njini ca marché ba bu ñu nee baara njini moom fëx na rek fas yéene ko ko wax mu taxaw ci wetam ba xam lu mu koy sant mu def ko ndax xam na ni ci loolu ci loolu la njaram loolu ci la njariñam ne te moo ko indi ci marché bi ci lay amee ndam ci lay amee ab sac bu delloo fa mu jóge woon ñu ni diw dem na ca taax ya am lu mu wuti kon jumtukaayam waa kattan jumtukaay la kattan yi nañ ko def ci sëriñ bi jeexal ko ci sëriñ bi jumtukaay bi ci topp mooy wërsëg wërsëg fi it ñi sun borom baaxe ñu am wërsëg nañ xam ni jumtukaay lañ yor ñoom itam boo xam ne buñ ko liggéeyee ëllëg mu jariñ leen buñ ko liggéeyewul ëllëg mu alag leen niñ ko misaale woon rek ci kàttan bi kon képp koo xam ne suñ boroom dénk na la wërsëg wërsëg bi da xam ne boo ci defee lu baax danga nga tàggoog moom boo ko ci deful danga nga tàggoog moom def ci lu baax taxul kenn tane la ñàkk cee def lu baax taxul nga tane kenn bu doon def lu baax kat dana xañe kon Tuubaa gii waa kër sëñ Darou ñoo ciy gën a dellu gannaaw te gënuñ te gënuñu cee dellu gannaaw la ndax kenn ku ne xam nañ liñ nangu ci seen wërsëg nangul ko sëriñ bi ci seen wërsëg loolu yoon wi kenn umbule ko waaye taxul ñu dellu ginnaaw kat bu fekkoon nangoo joxe day delloo nit ginnaaw kon foo gis kër ku ku aju ci seen dawlu asan boo dee joxab sarax mooy ki ko gën a yelloo kon ñu feddali ko bu baax a baax a baax te xam ni wërsëg yi faw dañuy teqalikoo moo xam nag bi ñuy dund teqalikoo moom wala nu dee bàyyi ko fi ñeneen jël ko di ci def leen neex kon nañ ci liggéeyal sëriñ bi buñ ñu defee ci bàmmeel bàyyi nu fa loolee ñu doon liggéey taxaw xett li jàpp ñu suñ loxo tàbbal nu àjjana foofu danaa fi fàttali wax yi na mag ci taalibe sëñ Daaru Asan muy wax ju ñett li muy ju am solo joo xam ne warees na koy jàngale ci jotaayu taalibe yi ñu wax ni muy sëñ maa gi ngiyéen yàlla na yàlla dool seen leer ñu ne wax na ni nit ki day buy dund ci àdduna te génnewul àdduna xelam mooy imaamam maanaam xelam mooy li koy wommat lépp li muy def rek bu bu waxtaanee comme xelam xelam ne ko waaye defal nii defal nii mu topp loola waaye mu ne képp ku gën a génn àdduna sa jëf mooy sa imaam moo lay wommat kon loolu lu mat a seetlu kon li nu xel yi sant dina woon àdduna ak boo joxee lii da ñàkk ak da ñàkk ful la nañ xam ne xel yooyu buñ ko toppee ba ëllëg jëf jaanuy wommat rek yóbbu na feneen képp koo xam ne nag kon yaa ngi jëf lu baax ëllëg sa sa jëf joojee moo lay wommat yóbbu àjjana ka jëfub safaan it jëfam moo koy yóbbu fa muy jëm kon xel yi nañ koo jëmee lépp ci liggéeyal say xal xadim radiyallahu anhu ci suñ bunt ci sëñ daaru asan waaye ci sëñ seex fis la mii suñ borom teg ci suñ kanam ak rakkam yi mu seqal kër gi yépp kon wërsëg waa ngoog moom itam noonu benn jumtukaay la bu ñaareel gannaaw kàttan jumtukaay ñetteel bi mooy xel mu rafet ku suñ borom dénk xel mu rafet lépp luy defar di yëwénal di boole di bennale di tax a déggoo te du tàqale nga di ko liggéey ci mbooloo mi yow itam yaa ngi liggéeyal sëriñ bi ndax xel moom it jumtukaay la xel moom it bu fekkee suñ borom daf laa joxam xel xel ma nga jëmee ko ci yàqate ak tasaare akub caytaaneeg ruuxaleeg rambaaj ëllëg kenn mënu koo tee dem sawara moom moomu bu fekkee dana dem àjjana it fa mu jaar sawara soo ko dem àjjana yàlla nu ci yàlla musal kon xel yi it ñi son boroom jox xel yu rëy te gudd nañ xam ci tool buñ koy jëfandikoo nañ ko jëfandikoo ci toolu sëriñ bi te bañ koo jëfandikoo ci toolu saytaane foofu it danaa fi indi benn nettali boo xam ne dañ ni ci seex muhammadul mustapha radiyallahu anhu la jóge jóge ci sëriñ abdu kan mu doon waxtaan ak moom di ko laaj ku defaru cheikh mohamadou moustapha radiallahu anhu xamal ko ni ak defaru laajul baatin boo génnee ci fere yi kenn ku ne kemte laayal na muy defare na lak defaroom toll ci suñ borom waaye safaan ba it noona mu ni wal iyaasu billah mu ni ko wal aksu bil aksu wal iyaasu billah kon kenn ku ne it boo ko xoolee na mu yàqe na la wóor ni noonu noonu la ak yàqoom toll toll ci suñ borom kon na ñépp maase waat déllusi delloo si seeni xel di dox luy defar di ko wax di ko yéene te bàyyi wax lu yàq ak di ko dox ak di ñaaroo ko ñettoo ci loo xam ne yàq dong la nañ delloo suñuy xel lii lépp mooy la nga xam ni moom la sëriñ bi waxoon ni naa ko leeral ci kàddoom ci baatam ñépp dégg ko waaye des na it jumtukaayu ñeenteel bi ñuy liggéey ci tool bi gannaaw ba mu waxee kàttan ak wërsëg ak xel muy xam-xam ndax dafa am loolu it xam-xam rekk moo koy yëwénal kon ka yàlla jox xam-xam booba moom itam na ci nangoo liggéeyal sëriñ bi te yàlla tax te mu ca seet lenn bu mu ca soxla sax ku xam ni lii mooma ma kon ñeenti tool yaa ngoog mbindeef yi bi sëñ Tuubaa yi xasiida yi alxuraani suñ borom ji ko suñ borom donal ñeenti jumtukaay yoo ngoog kattan yi wërsëg yi xel yi xam-xam yi gannaaw ba leen sëñ bi leeralee ni liggéey bi toll ci yoon wi leeral na leen tool yi ñuy liggéeyal sëñ bi leeral na leen jumtukaay yi ñuy liggéeyal sëñ bi leeral na leen it ñaan gi sëriñ bi ñaanal képp ku koy liggéeyal te mooy ku koy liggéeyal suñ borom añoon la nga bañ perte kon bokki julli di bokki taalibe yi jabootu Serigne Dia Assane soppe ak fun mos a jaar ak luñ nu mos a waxal kenn ku ne ci nun ci waxi sëñ bii ci dénkaane sëriñ bii nga xam ne mën nañoo wax ne moom itam mosu cee àgg kenn ku ne na seetaat boppam jéem a xeex ak adduna xeex ak saytaane lu mu mën lépp moo ko na dank nañ ko teg ci loxo lu si taxaw ci yoon wi ànd ak ñi nekk ci yoon wi loolu rek mooy li ñuy jantee la ëllëg leneen lu mu nag ku ca nekk te du loolu ma ngay nax boppam moo tooñ it boppam sëñ bi wàccoo naa wax na ne lim nu war a wax lépp te bay ci dara kon bokki tali bi fu ñu fi man di ne ñi nekk ci réew mi ñi nekk bitim réew sëriñ bi sàkk nay njiit njiit yim sàkk nañ leen jàppe jëmmi sëriñ bi ndax kat bu fekkoon ni dañuy xool rek sëriñ Tuubaa ni mu toll radiyallahu ak lim def ak fii mu nuy soññ ci lim dooru as kenn ku ne na seetaat sa xol lépp la nga xam ne day boo demee ci këri àddina yooyu ñuy wax dëgg ko faa séddoo na jëfale si dooru asan nu toll waaye képp koo xam ne képp danga nga da nga ma nu ko wala waxe tuutal sa jëf tuutal sa yéene tuutal sa pasteef boo xamee ba ñuy séddale sëb ceer tuuti na xam ne yaa tuutaloon sëb fii waaye ku di jàppat kër yi àjjanaam du am lu ko dëkke kooka kenn ku ne xam ne dina manqué lépp kon sëriñ bi nee na liggéey bii muy wax muy bi ñu war a teg xeer bi àllarba ak mboolem yeneen liggéey yi nañ ci defe Pastef nee na adduna bi donkat nit dana jay adduna dana ko jay ba mu def loo xam ni ñëpp dañ naan lii lim def ni ko defee te loolu adduna rek la kon nit ñi sàkk yàlla ëllëg noo war a gën a def noon yi kon sëriñ bi nee na sëriñ bii jubluuñ dañu yelwaa nun

danaa leen andi fawzu boobu rek mooy li ñëpp doon wut baat boobu ñuy wax fawzu boobu sëñ bi tudd ànd ak fawzu fawzu moo làmb mooy lu làmb lu rëy rëy li gën ci àdduna ak àllaaxira mi ngi tënku ci fawzu boobu wa saabiquuna al awwaluuna min al muhaajiriina wal ansaar wallazina tabawuhum bi ihsaanin radiyallaahu anhum wa radu anhum wa aada lahum jannatin tajri taxtaha al anhaaru xaalidiina fiihaa abadan zaalika al fawzu mu ngoog al asil gis ngeen faw suñu borom de ak yeneen yeneen fu suñu borom di waxee cër bu rëy di ko jël ci yonant bi ak saxaaba yi ko toppoon ci fawsu boobu la koy daan saalikal fawsul asim saalika huwal fawsul asim jàng nañ ko ba tàyyi fawsu boobu nag la Sëriñ Tuubaa wax ne sëriñ daru am gërëm naa la danaa sàkku ci suñu borom mu gërëm la may fawsu googu nga xam ni saxaaba ya ak Abu Bakar Siddiq gaañu mag ñëpp moom lañ daan sàkku ko amee la tuuti kon bi ko lañ deelu am amee ci sëñ waa sàkku ko ba am ko nu itam mun ko sàkkoo ko ci moom rek am ko sàkku gi nag nangoo dee wet rek ci suñ ñëpp nag joxe suñ ñëpp bañ a bàyyi dara kon liggéey sëñ deelu asan bii na ko ñëpp waajalaat atbaa yi almuridiin ba muy wax sëñ deelu asan dani ku bari ay taalibe la wala mu ni ku bari ñu ko topp la waaye ñooñee ko topp lépp kat ay murid lañ sëñ sëñ Basiiroo ca àgg du sama wax rakkam ak mboolem seeni rakk ak mboolem seeni nattangoo ci Daaru Xuddoos ci sun kanam ba ñu àgg fu kawe kawe kawe ah, doon ay mujaddid yoo xam ni mu ngi dellu di sant ñëpp di gërëm ñépp kon mën nañoo tàllal loxoy ñaan loxo yi fu ngeen taxaw danaa fa taxaw teegal tubarkal bi jagi waaw ak itam e, ñu waxtaan nag ci kaw e, mbooloo mi nga xam ne suuf du jóg ay baat jógee ba wuy ji suñu borom dem ba ñu def ko feeñu fa ko def te bokk booba fekk sëñ Tuubaa ngi njëriñ mu jóge bar sax googee si àdduna fekk